Euh, li ngeen jot am on s'excuse de ça ndox su amul si dëkk kenn du nelaw am na ñuy veiller ba deux heures du matin ñeneen ñi dañuy xaar ban heure ndox mi ñëw am na ñoo xam ne dañuy dem sax si ay ten te kenn xamul qualité ndox boobu est-ce que baax na am na ñoo xam ne dañuy jënd ndox te xamuñu origine ndox mi yooyu yëpp dafay am te on pense que dans quelque temps lii dafay dàq lan mooy cause principale mi d'abord Thiès amul woon ndox bu doy je reconnais ça Euh, euh, li ñuy produire ñun SDE doyuloon pour seen besoin seen consommation euh, Abou c'est vrai que soo nekkee borom kër toujours soo amee ay doom bu ñëw da war a yokk production bi ñu ngi woon si loolu c'était pas des promesses c'est la réalité qu'est-ce que la SONES a fait responsable de l'infrastructure yokk nañ production bi entre l'année dernière et cette année def nañ ay forages yu bees benn bi mu ngi fii beneen bi mu ngi beneen quartier bi def nañ château bi def nañu euh, benn conduite bi ngeen gis fii je pense yéen ñëpp waa Thiès gis ngeen conduite bu bleu bu bleu bu ñu doon posé entre fii ak Lac de Guiers objectif mooy yokk production bi pour waa Thiès yëpp am ndox projet boobu incha allah c'est pas des promesses euh, monsieur Diop Aziz je suis d'accord avec le comité de suivi on peut le mettre en place on peut visiter les installations les collègues de SONES son la qui ont fait les travaux projet boobu dana jeex avant le 30 octobre bii di ñëw incha allah ça veut dire que avant le 30 octobre dañ ko mettre en service je vous propose que termes techniques yi ñu bàyyi ko est-ce que conduite bi dafa leen di alimenter ou est-ce que dafay alimenter yeneen quartier mais disons que incha allah le 30 octobre c'est-à-dire dans 15 jours dans 17 jours parce que tey c'est le 13 dana am ndox pour fi seen quartier ndox bi jógee lac de Guiers ci projet bi SONES di def loolu mooy solution à très moyen terme je pense que mën nañ d'accord ci loolu forage bu bees aussi gis ngeen SONES def nañ ko fii ci quartier pas loin d'ici Mbour 3 euh, on est en mesure de l'équiper mais on na na pas besoin mais si nécessité il ñun ak SONES dañ ko équiper pour que nga gën a am ndox ça c'est dans 15 jours en attendant en attendant bien que camion citerne c'est pas la solution finale il faut que ñu d'accord que ñu jox leen ndox par camion citerne en attendant parce que fii ak le 30 malheureusement à vrai dire ndox robinet yi du ñëw comme comme vous le souhaitez donc euh, camion citerne yi pour l'instant y en a six c'est bien sa waa ji on va les doubler pour am douze camions pour que ngeen gën a mën a am ndox j'ai même dit qu'on étudie aussi est-ce que mën nañ def ay point d'eau si wetu château d'eau bi pour que ngeen mën mën fa dem pour alimenter wu donc nañu patienter tuuti je pense que ku muñ un an deux ans ak ku wax a dit depuis 2002 17 euh, jours soreetul incha allah bés boobu sax danaa déplacé si wu man ak mon collègue directeur général de la SONES je vais l'inviter s'il est disponible on va venir pour